Jacob Baldé. bu dem jëli Papa Sow Jacob Baldé. Areera. Diagne Kaye. Areera. Jacob Baldé laa war a maa Jacob laa war Jacob. tey maa ngi toog ak champion bu mag taxawal ki nga xam ne tey mooy nga am bés bu toll nii au faat say rek war leen a yóbbu barki Demba Ndiaye sunu borom teg leen nag ne ngeen d'accord ko jël wu war a jël booy yóbbu ko arène nationale tey lan ngeen di jàng. waaw dañuy sant yàlla rek di wax alhamdulilah rabbil alamin sunu borom moom mooy may mooy xañee di encouragé guy gi bu baax di félicité rek rek wax dëgg yàlla guy gi demee la xam na ne combat bi yàgg na am blessure wax dëgg yàlla bëreeg noo moom noonu xam nga métti nag mais nag boo sant yàlla rek da xam ne suñu borom mooy tege nattu yàlla suñu borom may wér ba mu commencé at entraînement am avant bien combat yàlla may ko ci ndam bu nag moom wax dëgg yàlla suñu rek ñu bokk waaye fii képp koo xam ne xew na rek xam muy mën mu daw mën mu mag bu dina la taxawal kon ñun amuñu benn droit bu xewloon mel te duñ ko ko ba yàlla may ko ndam li seddu mais Cheikh maa ngi lay ziar. waaw père moom fay naa la. mais naka ngi sa tey bés bi nga xamante ni tey moom la ñu war a ànd ak Boucher Guédiawaye gépp génn Cheikh génn ak ñeneen. tey ngeen war a yóbbu Bou Siteu noo ko gisee. waaw Fermo géejewaay rek moo ñor ñun ginnaaw géejewaay sax buy xeex dañuy sot. ndeysaan géejewaay lañ géejewaay rek moo ñor. mais da ngaa nuroo Bou Siteu. waaw te booy nag maa ko yar kii man ak safara mii di ko jàngal box ak njambaar mii taxaw moo ko yor Massa Ndiare. fii Santa Dior moo ko ñu ko doon boole ñu ko jël si fii di ko teg sere di ko yóbbu Massa Ndiare. loolu démb la te booy bu yarul waaye booy bu am kàddu la. yàlla ko yàlla defal ndam incha allah benn Yeni etraf yeni bana dönmeye dön.

sant yàlla baax bàyyi si bi yow. mais nag euh, monument géej waaye waaw ñu doon nag yaa ngi wuyoo ndax bu teew. waaw tuut bu teew sax nga nga teewal ko tey. waaw ndax ñii samay doom lañ ñii samay rakk lañ àdduna amul solo ñun ñëpp ñoo bokk ndey baay ñun géejewaay lañ am këleelu géejewaay la ñuy défendre fu ñu mënta dem géejewaay la ñuy défendre tey suñu doom a xew la ñoo ngi ñaan yàlla may ko ndam lu sedd guy lii rek war na ko yee xoolal public bi ñëw wuusu ko ci xale bu ndaw kon nag li ci des xam na ko jom fulla fayda dimanche di ñaan yàlla may ko ndam xoolal kilifa ay yitoom ñoom Fuuta ah xoolal tubaab ah doomu nday saa kees ah ñoom ñëpp dinaa la ñëw lii la la koy yokk jom la koy yokk yal na ko yàlla jàppale te mu sol ko ci cat ak làmmeñ waaw di ñaar di eh, ñaanal guy gi tamit yàlla defal ko jàmm ci combat bi mu jógee mu dem defaruwaat fajuwaat ñëwaat xam ni xale la ñàkkul dara xale bu ndaw non dafa am blessure bëre waale ko loo lépp la ñu ko war a combat yàgg combat bi am trois ans moo tax. bu yàgg ah ah ah léegi tey ay supporters di ko xaar ah, oh, ah ñu tëgg làmb ji di ko xaar loolu moo tax mu bëre waaye su ko neexoon mu wane rajo yi su boobaa kenn mu ci mën dara du bëree day wut médicalam yàlla ko yàlla dafa jàmm xale la ñàkkugul dara ñàkkugul dara waa kii kii xam kii sama doom sama xarit mooy oh, réparé. rakk maar la naanaan la champion ñoom ñëpp samay doom lañ ñu samay rakk la yal na nu yàlla dafa jàmm xale bu am combat bi géej waaye yal na la yàlla suturaal bu sale fi cat ak làmmel jërë ngeen jëf kontaan naa ci yéen merci beaucoup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 jàpp ñu xam mooy loolu après ñu bàyyiwaat te parce que xam nañ ne làmb la ñuy dund waa xam nga rek waaw boo tamit nekk nit ko xam ne ku ma sonal la te parce que chaque jour ko nekkul woon maa ngi moom waaw man ak magan la woon waaw kon moom bu demee nii rek waaw kon dañuy sant rek xam ne ñuy waaj jël nañ ko ba pare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 ci si si suñ taxawee ni ma xool ko ni maanaam rakk la booy la waaw moom maanaam moom moom moom ñi nga xam te ni comme comme sama école du ma kontaan ak ñoom te kuy dalanteeg ay mbay job safara ñoo nga xam ñoo ëpp sax mago Rwanda doole di dalanteeg ñoom di liggéey di waaw xam nga maanaam booy bi du maa moom wër na yàlla comme nii nii nii daa mun rek mais buñ jàppanteeg maa moom du moom. benn la am. géej waaye ci ni ma ko mën a waxee. parce que de moo jaay guy gi dem bëri ji. suñu borom dogal mu am tey ngeen waay di xaar ndax. Euh, bu Siteu préparé combat am ak Laurent Ndiago lan ngay préparé pour géejawaay ak loo nar def bés ba ba boo jógee arène nationale géejawaay delluwaat fa ñu nekkoon ci wàllu mbég ndax mbégte la xam muy wàllu ndaw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 yaa ma gën a xam lan nga leen di tànke ba bu ëllëgee mooy loolu waaw man moom samay suba bëgg nañ ma bëgg boo xam te ne ñoom leer na leer yàlla ku dem arène nationale dam fa séet na xamal ni yow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 maa moom dañoo war a bëre moo tax damay ñaan CNG ñu aji ko. te a que nekkuma fii di xaar ay nit koo xam te ni ay. kooku xale la dafa nekk ci yoon. tey jii li am noonu mun na am mu nekk ñoo xam te ñi ñi nga xam ne ñoo damu CNG nekkuñu ay supporteurs am kon damay wax waa CNG dañuy xalaat loolu te say ennemi mun nañ ñëw stade damu CNG fekk ne yow bëggee wuñ la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 man leer na leer roi bu àggee sama benn kuur ak moom sama làmb làmbam yàqu. doo moroomam. yaa ko a fii tubaab man maa la wax fii. Eh, Laurent Ndiago nee na dana la daan matt la gàjj la. dem yoonam rek barke seen du def dara. du def dara du ko def. Mhm. maa ngo gis jamono ji fan yii ba mu dem si baay Karim di sant waa Touba bu baax ku ci mel ni maa Abdou Lamine na bàyyi sama baay Karim Baye Karim sama Baye Karim la gis naa ko fan yii mu dem kër Baye Karim sol ay folokaas ak ay jiin xam mooy dem foofu foofu da nga foofu da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 foo dem am na fa ay nante yoo xam wala sama waay mooy loolu. Mhm. yoo xam dañuy dund millier tey nga ñoddil bu si tam millier. kon nag boo wax ni jë gën da nga fa am benn. loolu a ngay rey sa bopp ah. jàmm gën da nga fa bëgg a wax ne da nga fa am benn staff bu dëgg. jàmm gën waaw jàmm gën dégg ñooñu maa ñoom lu yàgg dëgg la chaque open press tey nga gis fi waa jàmm gën kon tey sama combat bii nii nekkul combat boo xam te ni moo la vraiment comme ma la la gan la kooku du